ak ñun aussi méthodologie yi ñu war a def ak action yi ñu war a def pour adapté wu ci loolu ndax xamal nañ ñu ko changement climatique am na ba pare te ke mënu ko fee dindi xam-xam bii nii ñu ñu jot jottali nañ ñu ko te te incha allah bu ñu demee suñu gox yi ñun ku si nekk dina jël responsabilité jottali li ñu jox fii nii nii ba pare def ay ay ay méthodes yoo xam ne dina tax lii nii mu bañ a yem fii mu mu nekk quelque chose boo xam ne ñëpp a koy sentir. c'est vrai parce que xamal nañ ñu ni. Euh, changement climatique bi boo gisee mu am fi y a des gaz à effet de serre yi ko causé te gaza à effet de serre yooyu noonu euh, bi ci bi ci ëpp doole mooy co te CO2 ñun ñëpp xam nañ ni garab da koy soxla donc bu fekkee dañoo jël euh, saxal garab def ko activité boo xam ne dañ koy dooleel dina tax benn sens mu wàññi lu baax ci changement climatique ba pare dinañu may aussi. oxygène bi nga xam ne ñun être vivant yi humains yeeg oiseaux yi animaux yi ñu mën see bénéficier wu de retour euh, ñun ndaw ñi incha allah bu ñu fi jugee d'après li ñu jot waxtaanee ku si nekk di nga dem sa gox jottali li ñu fi jot a jàngale daf ko sous su forme de de formation ou bien sous forme d'atelier bu ñu demee waxtaan ak ñoom xamal leen ni on est en danger équiler qu'il temps que ñu réagir. justement tàggat euh, xale yi ay xale yu ñu tànn ci fukki commune ak juróom-ñett. ci ñeenti département yi nga xam ni mooy Dakar alors lu ñu bëggoon mooy fexe ba xale yooyu ñi nga xam ne seen at mu ngi tollu diggante fukk ak ñeent ba ñaar fukk ak ñeent ñu gunge leen ba ñu xam lan mooy changement climatique lu mu wundu lan la lu koy indi nan lay feeñee ci sunu kër yi sunu gox yi ak naka lañ ko mën a justement euh, xeex ba wàññi njeexital yi mu mën a am ci askan wi tey yemook journée international de la jeunesse ñu bëggoon fexe jëmmal ko ci loolu moo tax xale yi sànq bi ñuy wax fësal nañ bu baax seen taxawaay ci loolu dañ koy rafetlu nag ndax pas bi ñu wone ci ñetti fan yi am na solo lool def ñu bett sax parce que xamuñu woon ne euh, ñoom seen xel ak seen xalaat tollu na foofu